ibrahim Ibrahima Sall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. a Sall nga nekk njiitu ASRED di association pour le soutien et la et la réinsertion sociale de détenus est-ce que convié nañ la si euh, dialogue national bi ñuy si ci 28 mai bile. waa ñi ngi sant yàlla euh, jox nañ ñu cër bi nga xam ne moom nañ ñu ko mooy wane ne kilifa yi ak waa réew mi ràññee nañu ne ASRED mooy association bi teewal prisonniers yi mooy dëggal fii jot nañu suñu carton invitation bi ñuy may ñu ñëw fekkee ndaje boobu yëkkati fa kàddu joxe suñu xalaat ci mbiru kaso yi ak mbiru yoon. waaw euh, maanaam terme de référence yi lan la exactement lan ngeen di waxtaanee foofu. waaw xam nga foofu li ñu fay waxtaanee bëri na xam nga ñi nga xam ne ñoom la ñu invité dañ leen invité rek ñu nekk ay activistes ay acteurs ay présidents association ay juges. ay préfet ay commissaire ay gouverneur ay ancien ministre de la justice même boo xoolee liste bi ni ñu ko defaree bi ma koy liir démb dama ne ça c'est extraordinaire maanaam amul connotation politique da ngay xool ñi ñi si ëpp pàcc sax si beneen régime bi la ñu bokkoon te dañ leen si jox cër bu am solo ay ancien ministre ancien préfet ancien commissaire ancien commandant léegi ñii di ñëw ndax ñoom buñ taxawee ñu jox leen parole ndax président Diomaye danaan leen ah yow lii ngay wax. Mm-hmm. yow Ibrahima Sall li ngay wax maanaam ministre bi il a été kenn ku nekk boo fa ñëwee yow yaay xool li nga xam ne nii moom nga gis ne moom ay jafe-jafe ci prison yi ci justice nga wax ko ah buñ toogee ñu bind loolu dernière décision bi njiitu réew moom moo koy jël. Euh, yenn yow en tant que kuréel bi nga xam ne moom nga jiite Ibrahima Sall lan ngay suggérer autorité yi bees yi euh, ngir rek euh, lépp daal di yemb. waaw xam nga ASRED moom jot na sax diggante démb ak tey ay ay bataaxal yu bëree parce que liñ ne détenu yi dañuy seetaan télé dañuy déglu rajo xam naa ñàkkul. dañu déglu xibaar rek léegi ñu ne seen njiit Ibrahima Sall invité nañ ko ñu commencé di woote président boo demee waxal ñu lii ñu lii ñuy bind seen i mais doléance yi nee naa xam naa ne bu ma taxawee foofu nar ko liir boo moytuwul gendarme yi dinañ ñëw jële jële ma foofu ndax liste bi dafa gudd gudd gudd gudd gudd ñaxtu yi dañu bëri. Mm-hmm. loolu dafay wane ne ay problème yu rëy rëy yu doy waar yu metti xale yi ñu ngi koy dund ci kaso ñun nag mën nañ jukki rek. lenn ci ñoom seen i seen i jafe-jafe ñi nga xam ne aussi dinañ def le tout jot ko kilifa yi ci bu ñu jëlee kàddu mais dinañ ko bind mu nekk lu administratif lu ñu signé jox ko le premier ministre si ñaxtu yooyu xale yi nee nañ kaso yi maanaam feesaay gi metti na metti goo xam ne xale yi mënatuñ nelaw nee nañu am na kaso yoo xam ne boo leen demee ci biir réew ay zeng la zeng yooyu mooy def tàngaay bu metti bi ba xale yi dañuy dañuy simmeeku yaram leen di ëpp rek nee nañ bu loolu weesoo nee nañ it liñ leen di jaay ci biir kaso bi ay café ay meew ay beurre ay saucisson euh, corned boeuf spaghetti këriñ yooyu yëpp dafa xale yi dañuy togg dañuy togg ndambe dañuy togg petit pois dañuy jënd ci biir boutique bi bu leen seen i mbokk indi la xaalis mais nee nañ maanaam njaay ci biir bu bi wax sa dëgg yàlla ci ñu caabi feete ginnaaw dafa cher cher cher cher cher ba jamono ji mën a tëj ñu ne it ñi ngi ñaawlu kaso yi nga xam ne dafa dafa fees kaso yi buñ ne kaso bi cent nit la war a jël nee nañ ñu def fa cent cinquante nit ba dootuñu mën a tëdd lekk gi dootul doy parce que kaso bi dafay dépassé li ñuy wax plafond budgétaire am mooy dañ ne kaso bi cent nit la war a jël cent nit yooyu kenn ku nekk war nga lekk ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki dërëm léegi bu ay manifestation amee waa kër Ousmane Sonko waa kër Barthélemy Diaz waa kër Idriss Seck ñaxtu police jàppaleel ñu yóbbu leen kaso yokk fa yeneen cinquante nit kon kaso boobu am na cent cinquante nit kon lekk gi ak naan gi dina am problème parce que ñi mujjee ñëw ñooñu sóoruñu leen ci budget bu loolu bu loolu weesoo ñi nga xam ne dañ leen àtte woon ñu def appel appel mooy ñu àtte la nga ne àtte bi neexuma nañ ma àttewaat ñooñu am na ci liste bu ma yor boo xam ne daanaka ñu ngi bëgg a jege deux cent soixante quinze personnes ci kaso Sénégal yëpp ñi ci gën a yàgg xoolal deux mille dix huit ak léegi ñaata at maanaam woowuñu leen sax tribunal ne seen appel am na suite bi am na si xale yoo xam ne seen këyit dafa mujj a réer si tribunal bi sax ñu ngi toog ci kaso bi amuñu benn saafara si ñoom loolu dafa metti ñi nga xam ne dañuy dem ba bésu àtte ñu àtte leen ñu ne leen ah yéen defoo leen dara te tëdd nañ juróomi at. fukki at loolu dafa am benn commission bu nekk cour suprême commission juridictionnelle lañ koy wax boo xam ne liggéeyam mooy mu ndàmp leen mais xale yooyu nee nañ nañ leen leen ndàmp jox leen seen xaalis fu ne dem nañ fa di fu dem nañ fa di ak xoxatal bi nga xam ne xor ñeeña bi nga xam ne ci yenn kaso yi leen leen it garde yi di ko xaw a xoxatal détenu di leen jiiñ ay téléphone ak ay yambaawa ak yooyu loolu it ñi ngi koy ñaaw par ñoom nee Ibrahima Sall ñun demuñu dikkuñu nee nañ bu ñu toogee ci kaso bi bu leen fa téléphone fekkee nee nañ seen liggéeyu ndey la nee nañ bu leen fa yàmbaa fekkee dañ koy tux seen liggéeyu ndey lañ ñoom ñoo ma ko wax nee nañ naa ko bindee noonu naa ko waxee noon nee nañ ñoom dañ leen di garder demuñu dikkuñu bu fa yàmbaa duggee ak téléphone dugg nañu xool kan moo ko dugal mais téléphone def koy dugg ñu fuye néegi jàpp leen dóor leen leen te ñoom demuñu dikkuñu donc kon lu bëree bëri war nañ ko xoolaat war nañu am juge des référés Sénégal mandat de dépôt yi dafa bëri war nañu woote loi boo xam ne danaan mais kaso bi bu bu amee nangamu nit kenn dootu fu dugalaat prisonnier loolu ay loi la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañu ko wax fii. Mm-hmm. Euh, bracelet électronique yi nag est-ce que lépp baax na wala bëgg ngeen état bi xoolaat ko. xam nga liñ ne dem ñibbi moom si dem ñibbi sa kër moo moo gën lépp ndax kaso dafa metti moo tax Baracé bu mu ñëwee ci tàmbali ba ñun xawoon nañ ko rafet la ndax nee nañ ñu takkal la ko sax moo gën nga def si kaso bi te loolu la ñëpp waxoon mais bi ñu koo defee dem nañ fañ koy defare bisite ko def nañ laaj nañ ñi nga xam ne ñoom lañ ko takkal xayma nañ ko natt nañ def nañu enquête mais dañu gis ne mbir bi am na xale boo xam ne ñi ngi ko ko takkal léegi mu am at xoolal ba léegi nii kenn waxu ko wow na kenn waxu ko tooy na te bàyyi nañ ko bu yàgg loolu manquement la parce que mbir bi mbirum xaalis aussi def ci duggoon mbirum politique daf ci duggoon état bi jël ko def ko mbiru politique bracelet yi bracelet mu am nag xaalis bu bëree bëri boo xam ne sénégalais xamuñu nu mu toll ci biir bracelet yooyu yëpp ñu war ko leeral joyanti ko defaraat ko kan moo ko war a takk kan moo ko warul takk te it bracelet yi dafa dëppoowul ak suñu cosaan ak suñu aada Sénégal boo gënee kaso takkoo sax bracelet maanaam boo bëggee jabar dañ naan kii kaso la jóge bu dee jigéen ga dañ naan e bu ko takka kaso ba jóge maanaam askanu Sénégal dañuy boddi ak di xeeb ak di doyadil nit koo xam ne kaso la jóge léegi yow boo takkee bracelet kon mbir bi day gën a garaaw yow benn psychologiquement di nga xam ne dañ la takkal bracelet say doom di ko gis seen waa kër di ko gis maanaam ngay tëddaat beneen kaso bu gën a metti kaso bi nga jóge kon daal yooyu yëpp war nañ ci xoolaat parce que la peine dafa am lu ñuy wax ah, double vocation punir nit ki parce que nit ki dafa am ay loi ay règlement yu nekk société mu jalgate ko ñu ne ko léegi nañ la jàpp yóbbu la kaso yóbbuwuñu ko pour ray ko pour xoxotal mais dañ koy yar jàngal ko métier tabax ko ba bu génnee mu nekk nit ku baax mais tey loolu nekkul parce que xale yi juróomi détenu yoo jël ñett ñi amuñu xëy amuñu gon li ñu nekkee ci kaso mooy carte euh, liir journal damier lido lekk naan entraitement seetaan télé bu dee ñu tëdd bu ñu leen waree libéré ñu libéré leen ma jàpp ne kaso yi war na am ay atelier menuisier ay atelier artisanat euh, à Sénégal am nañu ñaari millions wu hectares suuf yoo xam ne mën nañ ko bay Sénégal am nañ lu toll ci douze mille prisonniers ci kaso yi nekk Sénégal ma ne dañu war a sélectionner lu toll si quatre mille cinq cent détenus comme président nee na Sénégal pour ñu lekk bu suur foog ñu bay mais loolu nan nga mënee am ay prisonniers te doo leen invité ci lool ñu jël loolu nga xam ne défi bu rëy lay doon ci administration pénitentiaire ñu sélectionné leen suivant des critères bien défini mais soxna c'est dommage. gis nga wàllu kaso. wàllum justice. man li ma ci dem ci ay ndaje. yuñ ne dañuy waxtaanee ay saafara. mënuma la wax buñ demee ñu fay leen seen për jëm ñu naan seen café tëddoo hôtel la ñuy bind ci ay rapport buñ ñëwee du intéressé sax mécanisme yi dañ koy jël ranger trois moo tax mës naa président de la République bu xëccoon trois lam mm-hmm. ñaari rapport rek def nañ ci solution prison ak justice yëpp mais gëm nañu ne avec ce nouveau régime la jox nañu bopp kaso yi parce que président Ousmane Sonko bi mu libéré pour la première fois ci histoire du Sénégal un premier ministre libéré ci diiru vingt jour nga dem prison Cap Manuel teeti prisonnier yi mm-hmm. loolu acte bu fort la mm-hmm. nga woote ay assises pour ñu waxtaanee mbirum justice waxtaanee mbirum prison yi invité si acteurs yëpp yëpp yëpp yëpp te nga teg si ne ku ñëw waxal librement kenn tënku la yaakaar naa ne dëgg rek la yàlla bëgg ku ne réew mi du changer da ngay nax sa bopp réew mi dina soppeeku justice dina moom boppam Sénégal dina émerger incha allahu mais ñu ngi woy di arrêté ni ñi di tere manifestation yi taximaan yi gis nga seen manifestation bi dañ ko tere woon am ñu ñu si jàpp tëj gis nañ arrestation wu ay Bajaxate ak Imam Ndaw aussi ak manifestation yi nga xam ni ñu ñu dégër piir ñu ngi koy amal euh, un peu si si banlieue bi marchand ambulant yi tablier yi euh, naka nga gisee loolu ak nguuru Jomaay bi arrestation yi surtout. waa xam nga man man dafa am côté boo xam ne damay ñaan rek ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu transport ak njënd me njaay mi marché mais ñu woo xale yi xale yi dañu sonn si xeex mi ñoo doon génn di manifester di jàppale Ousmane Sonko dëgg tamit la yàlla bëgg maanaam buñ leen xoxotal buñ leen fitnaal réew mi seen réew la de gouvernement bi dafa war a wane de li fi nekkoon noot bañ leen nootoon ñun dindi nañ mais nag booy manifester manifester si lu valable tegul ci yoon woo ñu waxtaan ak ñoom yéen taximaan yi lan mooy seen problème lan ngeen bëgg yéen ñi nga xam ne yéen a ci marché bi occuper la voie publique mais fi ngeen teg seen table yoon daf koy tere ñëw leen ñu waxtaan ñu recensé leen ngeen wax fan ngeen bëgg état dem daajal leen fa ay cantine cantine yu moderne accompagner leen ak banque yi réew noonu lañ koy tabaxe répression bu bëri baaxul bu dee nag da nga wax mbirum baa Diakhaté kooku Samba Boye la kooku àtte bi ñële am moom mënu ko am ndax man sax dama yéex a xam ne ki ñuy wax Bah Diakhaté moom militaire la woon man naa ko gis ci télé bi rek joxumu ko benn fulla benn fayda benn bis laa tëdd ma zoom télé bi ma ne kii du Bah Diakhaté day ma ne àdduna moo doy war kooku ñi bokkal quartier ñëpp boo leen mën naa la jox seen numéro nga woo leen jooy yu métti la nekk woon quartier parce que formation quartier métti na métti waay goo xam ne am na ñoo xam ne ay faatu bango lañ leen di wooye faatu bango mooy koo xam ne bu ñu simee say morom di leen sang di leen def yëfu góor da ngay jooy sama biir day met sama bopp day met ba jaxate boo jàngee xar kanamum sax nga xam ne ragal la woon ragal bu la woon loolu la nekkee woon quartier donc kon kooku bu bu bu ma ko xoolee sax mbir bi daf ma jaaxal nee naa kii kañ dafa am fit bay bay wax si télé ndax koo xam ne yow sa quartier yëpp ko jooy diggante démb ak tey fàtte fàtte xaju fi jooy na fi ba ñu gracier ko gracier mooy ñu nekk demal nga noppaloo ko yow formation bi attaloo ko kon kooku bu yeewoo ne day xas ay gor ñu mel ni colonel Kébé nga xam ne DIRPA moo ko jiite colonel Kébé Saint-Cyr la génne nekk officier émérite am ñaari soxna kenn ki nekkatul ak moom sax mu amaat beneen soxna am ay doom yu mag ba man xibaar yi ma benn femme woo nee na ma sàll de mu ne ma doomu colonel bi dafa sax doon waaj a xaru ndax li ñu giiñ baayam daf ko naqari naqari ay mbokkam dama xamul Bah Diakhaté ndax dafa naanoon wala dafa tuxul yàmba bi mu wax lool wala dafa jàppoon ne Macky Sall moo fi nekk ba léegi ba kenn du ko si jàpp mais en tout cas li mu wax mën na taal réew te nag Sénégal yàqante der wax ju ñaaw ah buñ ko lijjantiwul dina dina yàq société bi de lu dul dëgg kenn du ci ànd nit booy tuumal nit kenn bañul tuuma de mais buñ la woowee indil firnde yoo xam ne boo ko tegee stable ñu ne ah ci kat li wax dëggal Bah Diakhaté du activiste fu mu nekkee activiste Bah Diakhaté militant APR la xaalis lañ ko jox bu weex tal par Macky Sall budget la fi bàyyi mbirum Mélenchon fale ko ñu jël ko def ko récupération politique jox ko koo xam ne mooy porté combat comme film scénario Adji Sarr ay maître El Hadj Diouf woo ko ñu ne que affaire bi diffamation lañ lay toppe kenn du la si tëj lii ngay wax ak lii ak lii ñu indi Bah Diakhaté Bah Diakhaté wax ko ñu commencé ko wéef commencé ko dajale commencé ko yónnee mais Bah Diakhaté bu enquête bi soree bu ñu xoolee portable am di dina jib fuñ ko fogewul si deewu Fulbert Samb Fulbert Samb ak beneen gendarme ak beneen liggéey ji waaw parce que yuuxu dina jib fuñ ko fogewul merci beaucoup Ibrahima Sall ñu ngi lay remercier bu baax a baax Ibrahima Sall ñuy fàttali ne yow yaay njiitu ASRED l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus